lu waral Sénégal ni mu war a demee demeewul ni te tey guddi yi ñu toll tafsir dafa am lu am Sénégal tey li ñu seetlu dafa soppeeku mooy tey ji nii feebaru xol yi xol yi ñoo feebar man seetlu naa ci réew mi limay wax nak ci sama bop la ko tambalé ñun suñu mbubu yi set moñu gëna yittel suñu xol yi set febar bi xol yi febar moma jaxal cheikh Cheikh al futti radiyallahu anhu samam maam borom Bandiagara ñu ngi profito di ziaré walé bu baaxa baax Thierno bashir tal khalifa Cheikh al Alhaj Omar di nuyu suñu mag tamit suñu kilifa cierno Madadi cierno Muntaka Ahmed Muntaka Cheikh Umarul futi ak usra Cheikh Alhaji Omar futi yeb sa mam Cheikh Alhaji Omar dafa lajone ben laaj borom xam-xam yeb gàtt mune len leen xaj bu lekke ci sa ndab sharia dafa ne dañ koy raxas juróom-ñaari yoon te ben bi day ànd ak suuf du loolu la charia wax mune ku yes xaj nak bu lekkee bu xabee ci ndab li gën ci ndab yi bu boobaa noo koy laabalee <laughs> allahu ci rimaax mu ne charia dafa ne xaj bu lekkee ci ndab sa ndab bi ngay lekkee xaj lekk ca da koy raxas juróom-ñaari yoon benn bi day ànd ak suuf <laughs> mu ne nag ki yées xaj bu lekkee ci ndab li gën ci ndab yi mu ne noo koy laabalee mu ne ñu ne ko léegi dañ lay laaj Cheikh Umar lam da juul bi kan moo yées xaj mu ne Iblis moo yées xaj ñu ne ko ban mooy ndab bi gën ci ndab li mu ne mooy xol alqulubu aaniyatullahi fi ardihi xol mooy ndabal yàlla ci kaw suuf ndëgam jigéen moo am fullak fayda ba bala mu yekk ci ndabam dana ko raxas ba mu set dëpp ko ba mu fendi mu jël torchon fomp bu mu wow doog a yekk rawatina ak jalla jalaaluhu buur bi nga xamante ni mhm. moom mi nga xamante ni nee na xajul ci kaw suuf xajul fenn waaye ci xol la xaj mhm. te tey actuellement nii tafsir dañu jàpp ni xol yi ñoo feebar mhm. xol yi ñoo feebar parce que tey man xawma lu xew lan la coxor gi ci réew mi kiñaan gi ñàkk kersa bi xawente sutura bi sàggante sakk yi man dama xamatul li xew te sama Mansour dafa doon wax ni wa taxiril qalba min xeqdin wa min xasadin wa min xasadin wa kullu wasfin zamimin bayna aqraani waaye xol nag defe naa ni bu laabulee dara laabul tafsir Abdourahman Cherif dugg nga ci lu am solo muy xol xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu nañu inna fil ljasadi mudga ida saluhat saluha aljasadu kullu wa ida fasadat fasada aljasadu kullu ala wa hiya alqalbu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du waxe bànneexu ba kenn yàlla nee na lu mu wax maa wax wa maa yantiqu an ilhawa in huwa illa waxyun yuha sang bi nee na koo gis muy dem am na lu nekk ci biiram ci yaramam am na benn suux boo xamante ni aw yàpp la boo xamante ni bu jagee léppam jag waaye bu yàqoo léppam yàqu mhm. ñu ne ko yaa rasulallahi loolu lan la mu ne loolu mu ala wahiya alqalbu loolu mooy xol Cherif mhm. xam nga xol suñu borom subhanahu wa taala daf ko bind ci doomu aadama duma dugg ci côté médecine ndax du sama xam-xam am na ñu ko xam waye biñu xolé xol li muy def ci doomu adama amul benn cër buy def lolu ci doomu aadama liggéey bi muy def buñuy waxtane amradul qulub nak nga wax ni ñu ngi waxtane febaru xol yi faw ñu xam ni doomu adama yi ñett rek lañu dafa am ñetti xol yo xamanteni ñewna ci alquran امنا قلب ميت خلب وخمن دفا دي كوكو منو توتي دارا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم امنا خلب وخمن دفا فيبر ان شاء الله دي نيو فيري بالي امنا خلب فيبر ياغي ديغ القران دي واخني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 am na feebar bu ñuy tudd siburu am na lu koy faj mhm. am na feebar bu ñuy tudde soj am na lu koy faj mhm. am na feebar bu ñuy tudde asma am na lu koy faj ba ñu continuer mhm. xol day feebar feebar yiy dugg ci xol nag dafa bari incha allah dinañ ci àgg par feebar par feebar mais feebar bu ñu ñëw rek incha allah dinañu la wax lan moo koy faj bu dee médicament dinañ la wax lu koy faj bu fekkee sirop la dinañ la wax lu koy faj xol bu feebar daal nga xam ne yàlla nee na fii qulubihim nekk na ci seen xol yi maradun feebar mais comme ñoom bëgguñoo wér ndax garab gi ñu leen jox mode d'emploi bi jox nañ leen ko ñu bàyyi mode d'emploi bi di ko employé na mu leen neexe Chérif da nga feebar seeti ki xam feebar bi hmm. mu bindal la garab hmm. nga jënd garab gi pharmacie hmm. ñu ni la benn comprimé suba benn comprimé di benn comprimé ngoon yow nga yàqamti suba gi nga jël ñetti comprimé bëccëg nga jël ñetti comprimé ngoon nga jël ñetti comprimé mais doo wér feebar bi day dolliku moo tax suñu boroom ni dañu feebar bi ma xoolee ba gis ni dañu feebar bind naa médicament médicament bi mooy al alquran bind jox bind naa médicament bu koy faj def naa ko ci notice notice bi mooy alquran alquran jox naa ko professeur bu xam muy sayyiduna muhammad waaye nag kum bëggu ñoo wér fa zaadahum allahu maradan wa lahum adabun alim feebar bi dafay dolleeku wante du dellu gannaaw Cherif am na xol bu wér dégg nga suñu borom subhanahu wa taala di wax ne àjjana kenn du ci dugg illa man ata allaha bi qalbin salim yawma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim al alaxira doom amu fa njëriñ doom yu bari alal ju bari amu fa jeriñ lan mo fa am jeriñ moy xol bu set wetch kon Serif mom nga wax legi sa mam Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour radiallahu taala anu ni wa tahir balal setalal al qalb xol bi mu ngi lay tambale wax febar yi min hiqdin ci soxar ومن حسد اك كينيان كينيان اك سخر سوري ووجو مي تيري داني واخ ني عرب دا فا ام حسد ام حقد ني ني حقد نك مو غنا غراو حسد فخيل با ديندي حقد ديندي حسد مون دا سمام محمد المنصور واخ وايو وكل وصف زميم بين اقراني فخيل با سخول شيخ الحاج منصور نانا نانكو سيتال تي مبوله ملوكان يو ني غاني يو بون يي ييب دينديكو تي سخول ني ني كو كيب mu tambali nak di jeur ko fal lisana sa làmmiñ Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour ne na nga ko fekk na nga ko téye wala tutliqu da hadarin bul bàyyi sa làmmiñ muy wax rek di wax rek ne ci xiiba di jëw namima rambaaj buxtaan di lay wax loo xam dara wóoru la ci koo toogal ka dem nga di ko jëw Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour nee na na nga góorgóorlu yow doomu ndey yow doomu aadama bi fexeel ba sa xol na nga dindi ci moom loolu nga di ko képp mu ni la nag an saaqi jiddika chammir na nga góorgóorlu ba def effort ci sa farlu xam nga lu tax mooy araab yi dañuy wax ni bi jiddi laa bi jaddi kulla mujdin fa hal jaddun bi laa jiddin bi mujdi bari na kuy góorgóorlu boo ko joxee loxo mu ni man di way sama maam arab yi ñu ni déedéet maamu kese amul njëriñ li am njëriñ mooy nga góorgóorlu moo tax Cheikh Alaaji Mouhamadul Mansour ni na nga góorgóorlu jéem a farlu nga gor gor lu pour avancer ndax te ci sa farlu ci ngay àgge wajahidu fillahi haqq jihadihi la alquran wax wajtabaakum Cheikh Alaaji Mansour ni kenn ku ne boo xeye bay teud wa hasib an-nafs fi dunia muxaasabatan qabla alqiyamati tarbah dun khusran ken ku ne shérif bala ngay teud na nga dugg ruqu ana man lakkan kan journée tay bi dem naa 2S journée tey bi dem naa place sangam journée tey dem naa place sangam nga regle sa bopp évaluer sa bopp ni tey lu ma def ci lu ñaaw tey lu ma def ci lu baax nga régler ko nga fexe ba tey loo def ci lu ñaaw bu subaa nga a def lu tol noonu booy def noonu rek alba avant àllaaxira di jot alaaji Mansour nee na tarbax di nga bëri bénéfice duuna xusraani te doo perte waaye kuy tëllëx tëllëxi te doo régler sa bopp doo xam foo jëm ndaxte ku réglewul sa bopp boo demee fële ñu réglé la te ku ñu réglé fële nga perte gisuma la mbaaw waa mbaaw ñu baal ma Chérif kaddu gaa ngi noonu li amoon ci waxtu jeex na wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaw kon nag gisuma la mbaaw donte baaw nga dëkk nga ne waa mbaaw baal leen ma <laughs> yàlla nañu yàlla boole nangul amiin yaa rabbal alamin kon nag bu subaa incha allah ñu a dugg ci mbir mi wax ci feebaru xol yi wax nag façon feebar yi mm-hmm. waaye ni nga waxee nag feebar bu nekk mm-hmm. ñu wax naka lañ koy fajee ni ko imam Ghazali waxee mm-hmm. nee na alqalbu يمرض كما يمرض البطن نانا خول دا فاي فيبر نيغا خامتيني نون لا جيم دي فيبره واي نك بو نيك امنا كوكاي فاج واي كيكو ورا فاج ني دنجكو ديغلو موي القران الكريم موي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم تفسير جيري جفتي تي ني انديل تاي كون بسوبك جام ان شاء الله تعالى بمحمد وببنته وببعلها وابنيه مصبتين اعلى من الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا اهل المكارم والندى jërëjëf Xaali Ousmane jërëjëf Aydara Aydara jërëjëf kon nag ba suba ak jàmm waaw incha allah incha allah taala yàlla yóbbu incha allah ba suba ak jàmm Aydara barakallah jërëjëf Xaali Ousmane jërëjëf